guide au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñuy topp ci biiram ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar bu baax a baax Euh, di leen nuyoo nag euh, fii ci rond point Mbacke rond bi nga xamante ne bii moo jugee Mbacke waaye jëm Touba xam ngeen ne fii nga xamante ne bii euh, fi lañu taxaw nag ñii fi taxawal mooy kuréelu war may sàmm war may Touba jëwriñ ji di Serigne Bada moom Serigne Dame Abdourahmane Fall Saliou Daaru Xafoor mi ngi taxaw nii dend ak Serigne Fallou Ndiam moom itam Serigne Mbacke Fall waaye itam Serigne Dame Fall Soda moom Serigne Cheikh Modou Mbenn mi yor kàddu Serigne bi tey nag Serigne bi dafa woote woon woo njabootam jëpp di njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall. ñëpp ñëw mu wax ne léegi Cheikh Mouhamadou Mountakha bëgg ci dëkk bi eh, ñu ta gën a taxaw ngir sàmmal ko dëkkam bu tedd bi eh, nañ ñëpp daal di génn kenn ku ci nekk nga waaj nag waajal sa bopp ngir ñu daal di nag ñëw tàmbalee ci rond-point bii sécurité ko ngir xam ne kenn du fi dugg di manifester wu di def loo xamante ni bii dafa dëppook li nga xamante ne bii noonu la sëriñ Muntaxa bëgg ci dëkk bi te mooy ñu jaamu yàlla ak liggéey ni mu ko waxee saa su nekk rek te moytu yi nga xamante ne bii mooy yëngu-yëngu yi bëgg ko fi loolu nag mu dénkoon liggéey bépp Cheikh Amdi Fall Modou Mbenda ñu kur sos kuréelu Sàmm Woor May Touba di ko saytu jamono yëpp ngeen gis nag yëngu-yëngu yëpp di ci biir dëkk bi di yàq te loolu sëriñ bëgg ko fi muy lu ko metti nag sëriñ bi nag dénkaat feddaliwaat ndigal li ki nga xam ni mooy maam Cheikh Ibrahima Fall mu woowaat ak njabootam na tey nag nañ génn ñun ñëpp taxaw temm ngir baare li nga xamante ne bii mooy mbedd yi nga xam ne fi la ñuy jaar ngir dugg ci biir dëkk bi ba kenn du fi dugg ngir di yàq wala muy def dara ndax képp ku fi dugg di yàq fas yéene yow incha allahu ba nga bàyyi ko euh, ba boo lëggee dootoo ko defati loola nag Serigne Bada lañ fekk si fii ci rond-point bi ñu taxaw lan moo doonoon tey seen euh, taxawaay fii euh, gis nañ ne Baye Fall yëpp mobilisé wu nañ te kenn ku ne nag yaa ngi yor sax nag sa sa sa sa ngànnaay ngir xam ne xare ku ca jëm dangay yor aw ngànnaay da ngay waaj a sa bopp. ok asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala di julli ci Moustapha xayru xalqillaahi waaye nag di feddali suñu pas-pas ci suñu diggante ak Serigne Touba Cheikhouna Cheikh Ahmad Bamba Khadim Moustapha loolee nag ñu di ko jaare ci muritam boobu nga xam ni mooy a Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Muridina di suñu yaakaar tey ak ëllëg Serigne Mamoun ñi ngi sant bu baax di leen jaajëfal ci euh, intervention bi ngeen def euh, maanaam lii moom sabab bi weesu lu dul rek mhm. ñun am pas-pasub ndigalul Serigne Touba sax dàkk mhm. baatub Serigne Touba bii mhm. di Cheikh mun taxa Mbacké yàlla na fi yàgg te ànd ak wér loolu rek moo na tax a jug mooy sunu yitte bi nga xamee ni dëkk Touba bii sëriñ Touba moo ko faggul boppam te jublu ci maanaam muy am muccukaay yaatal ko def fi jàmm ak salaam xajoon ñëpp nag dëkk ak ñoom waaye nag mu am melokaan yu mu bëgg ñii dëkke dëkk bi ñu melo ñu yore woowu melokaan loolee nag ku fi mas a nekkal Serigne tubaa mooy ci ci loola nga nekk Serigne tubaa mi sanc dëkk bi noonu la ko sance woon dëkk bi doonoon dëkk bu sell dëkk boo xam ni li fi nekk lépp mooy lu yàlla gërëm ak lu rasulillahi alayhi salaatu wasalaam gërëm bi mu demee ba wuy ji boromam dëkkaaleek moom Cheikh Mamadou Moustapha mbakke mi ko njëkk a wuutu noonu rek la fi nekk woon di fi liggéey liggéey boo xam ni mooy ba waajuram ma doon liggéey mu rafet lol mat seuk ba mu fi wuté ci zahir Cheikh Mamadou Fadilu non la fi nekke woon gannaawam sëriñ Abdoul Ahad mom la fi nekke woon ba def ci ay ndigle ay digle ak tere yu fess yo xamni ba jëmmi jamono ji mbind mom mi ngi fi te ci lolé rek la Cheikh Mamadou muntaha Mbacké teunk gannaawum Cheikh Abdoul Khadir ñom ñëpp yel neen yàlla dolli ay ngërëm ak leer ci lolé la la nekk ba Serigne Saliou aksi fi wéel liggéey bobé noonee nako Cheikh mamadou Lamine Bara taxawoo jëf ci moom it loo xam ne ñëpp gis nañ sëriñ Sidil Muxtaar Mbakke def loolee ba digle ñu tënk ci ab yar ak teggin wax ne ku yaruwut nag doo doo doo yor dara loolu waxoon na ko ca kàddu yu wolofam yooyee ku amuti teggin tamit doo teggi dara loolee nag mooy junj yooyee nga xam ci lañ mas di nekk Cheikh Mamadou Mountakha mii nga xam ne nag naka jekk ku fi mas a nekkal Serigne Touba gërëm nga ko muy doomi Serigne tubaay yi di ay wayjuram ba ci maanaam magam yi fi jot a wuutu te kaja jiit di sëñ Sidil Mokhtar ak Cheikh moom di Cheikh Mamadou Lamine Baara ak sëñ Sidil Mokhtar ca loola rek la nekkoon loole nag moom lay wéyal fas yeneen loolu mu donn ci ndono loolu mu donn ci wayjuram yooyu ak magam yooyu loolee dara maanaam du du du ko salfaañi looloo tax bi muy soog ñëw ku ne gis na discours bi mu njëkk a wax wax ne ne gëstu na lépp ba fi mu nii xam na lan mooy sëriñ bi te ca loolu rek la nekk ca la woote ca la nekk day mel na nag su fekkee ñun gore nañu wala ñu xam li ñuy war sëriñ Muntaxa ayam gii day dara luy nuru ak ak lu salfaa ñu waru ci am wóowuñu nag ci lenn lu dul njariñ bëgg ñu jariñu ni mu jariñoo loolu rek la ñu yéene looloo tax mu jëloon war may tubaa ji xam ni fi la sëriñ Touba tëdd te bind ci téereem bu màgg boobee di Matlabul ni la mu bëgg ñu melokaanoo ko ñiy dëkke dëkk bii ca sëriñ bi bëgg lépp def na ko ci looloo taxoon sëriñ bi ne Matlabul Fawzeyni googu sax sàkku na ci murid yi ku xëy nga jàng ko ndax mooy làkkub Tuubaa wax nag ne maam Cheikh Ibra Fall mooy tatay yoon bi kon tata nag buñ ko buñ ku ko xamut mooy loo xam ne kaaraange lu mat sëkk la rek ba ñu demee ci Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou dafa wax ni li ko gën a yéem ci liggéey bi te gën koo sedd xolam mooy ka digle mooy digle ka mu daan digal moom la digal ka daan digle nag mooy kan mooy Cheikhul Khadim mooy Serigne Mountakha ka mu daan digal mooy kan mooy maam Cheikh Ibrahima Fall mooy Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda yàlla nañ fi yàgg te ànd ko biir léegi nag mu xam le ni sëriñ bi moom waxal na boppam ni mboolem ñiy yëngu ci wàllu adduna fu ñu ne ak njabootam dañ faa féete muy ñi nga xam ñoo yore mi di parti pouvoir bi ak ñi nga xam ñooy saku réew mi di opposant bi moom nag kon féetewu ci kenn waaye li ma bëgg mooy warami sëñ bamba ji nga xam ni la fi la tëdd fi la Cheikh Issa Diène tëdd fi la sëñ Mandumbe Xaban tëdd ci la sëñ sëñ sëñ Daam Abdourahmane Lo tëdd sëñ Mbàkke Bousso tëdd fi mm-hmm. ñëpp ne fi di mag ñooñu nga xam ni dañoo àndoon ak sëriñ bi man sëñ ma Samba Diop Sam ak ñi mel na ñoom ñëpp mm-hmm. bañu sëñ Balla Fally Dieng mm-hmm. kon ñooñee war nañ leen a warmal ñoo def ci dëkk bi lenn lu safaanoo ak li fi sëriñ bi bëgg sëriñ bi wax nag ne bëggut lii di politique wala ay manifestation wala lépp luy xotti war may sëriñ bi dëkk bi ñu di ko fi def loolee dong nag moo moo moo moo sabab suñ jotaay bi doguma la waaye mel na ne li tax tey ñu génn dafa mel ne tey bokkoon na ci bis yi ñu waajoon ngir bëggoon a dugg ci bis bi keroog fan yi ñu génn dañ ko fee def bañ koy defit war may Touba ji muy maanaam des yi ñuy liggéeyloo ñoom rek lañu yabaloon jàpp nañ ni ñu nag waa dëkk bi ñoo bokk gis-gis ci sëriñ bi ba lépp luy xotti war may dëkk bi kenn xalaatu ko bi ñu demee nag ba gis ni ñoom loolee ñu ngi koy jéggi di def lu wuuteeg loola ca la sëriñ bi bamtuwaat kàddu yooyu waxaat sëñ Amdi Fall moom sëñ Modou Mbenn ne ko lii moom bëgg moom amati ci dëkk bi ñun ñi nag ñun ñooy alali Serigne Touba. Serigne Touba moom ñëpp waaye ñun waa kër Cheikh Ibrahima Fall de moom gim ñu moom moom gu leer nañ la gu fis te it nangu nañ moomeel googu keroog ba sëñ Tuubaa waxee sunu maam Cheikh Fall ne lan nga bëgg dane ko fu sang gi yegg rek na sama njaam gi yegg mhm. loole nag ci la nekk ba tey ji kon ñun suñu yitte àndunoo kenn ko du sëriñ Tuubaa ak seex Fall mhm. ñi ngi ñaan ñëpp di leen woo ci jàmm mhm. ndax bi adi yaali bila bukaay la sëriñ Tuubaa waxoon te Cheikh Mamadou Mountakha waxoon nañu ne sëriñ bi dem na ci géej gi ba ñibbisi deret tuuruwut xaddamut looleet moom la bëgg ñu doxale ko ci liggéey bi waaye nag lii moom ay manifestation ak di dëkk ka lakki oto mm. loolu moom jeex na bis ni nga xam ne bis ni jeex na ci dëkk jeex na fi ndax ñun day noppi nañ fépp fu ñu ko dégg danañ dem maanaam ñooñu lu mu leen jaral rek jaral nañ kon jàpp nañ xëy mi du tey dong déedéet lii luy continuer la maanaam dañoo bëgg ñu bokk fi définitivement kuy yëngooti ci politique maanaam ngay def ay manifestation ngir jëmmi Serigne Touba génnal dëkk bi boo ko defee feneen suñ yónni ko ci mm-hmm. ñun ànduñoo kii ànduñoo Cheikh Ibra Fall ak sëñ Bamba lañ àndal mm-hmm. ànduñoo keneen ku nu ko waaye waaye ñun lii suñu yitte mooy kàddu Serigne Touba gii na sax dëkkam bii di wërëmi Touba nañu ko fi bàyyi dégg ko lu waaye def leneen foko ko def suñu yónniku ci suñu sañon nak ñepp am jamm rew mépp ne ci ak dal lolu fépp la baxé waye fi dal ñun moy fi nga xamni fi lañu fi lañ ñu ko sante fi la ñu yamit dëgguma la laaj bu mujj bi rek moy tay dal kon xalif général de Baye Fall dafa woté won liko tax le tax mu woté won njaboot gep yitte yépp rek moy li ngeen def tay waaw feñ na ba ci complexe bee ca Mbàkke mm-hmm. muy stade bi sëriñ bi joxon sëñ Amdi Fall mom sëñ Modou Mbende ñu diko ko liggéey mm-hmm. dafa def ay jangukaay ak ak ak juma ñanga ca liggéey ba ñor sëriñ bi lool waaye bisub tey bii dane nañ ko dakkal te ñëw wuy si ko ci këram ba ñu ñëwee mu rey ay nag togg ay añ jox ñu ñu xéewlu ñaanal ñu te ñu na ngeen jug dugg ci dëkk bi ndigalul sëñ Bàmba lii na sax kon murid yi war nañoo am kersa te rus liggéeyam sëñ Touba bee ca Mbàkke ñu dagg ko ngir seeni fitna yu ñuy indi ba sëriñ bi di ko ba sëriñ bi di ci wax. sëñ bi moom xam nga sunu alal la. ay ay kuur yi Baay Faal yii sax am maanaa wares na ko cee fàggu. doyewuñ ko lenn nag lu ñun sunu ngànnaay la dana koy yore. Mhm. li ñu bëgg mooy képp koo xam ne daal def nga fi lu wuute ak lii. Mhm. danañ ko jëflanteeg yow ku dul lool nag ñun ak ñëpp bokk yam yam ci dëkk bi. ñunu jéemu ñoo gàllankoor kenn teguñu kenn fitna. Mhm. ngir yàlla ak jëmmi sëñ Touba nañu nit ñi may jàmm may ñu jàmm nag mooy lan. mooy ñu fexe ba sëriñ Touba li mu bëgg ci dëkk bi am ku def lu wuuteeg loola rek ñun suñ jàmm jeex na jërëjëf ñu ngi tuub kàddu yi tey sant ñëpp nag ndax gis nañ ni message bi tam bi mu jàllee ah, mel na ni murid yi ci dëkk bi mm. jëfe nañ ko kon xam naa ne ñàkk a xam moo leen dugal ci lii mm. waaye sëriñ baa ngi leen woo ci ak laaye biir mm-hmm. ñu ànd liggéeyal sëriñ Touba ci dëkkam bii mm-hmm. seetal ko setal suñuy xol te fas keneen koy àndal nag ci wàllu yëngatu àdduna mm-hmm. loola nga seet na nga koy jëflante ak moom te génn ci ay yëngu-yëngu ci dëkk tubarkalla jërë ngeen jëf jërëjëf di fàttali moom mii rek du Serigne ma ciy dolli nag mooy bi ngay da nga ni Sëñ Bada mi jiite war may Touba ji Sëñ Assane moom Cheikh Modou Moussa Fall mm-hmm. moo ko jiite ak ñamu ko àndal muy sëñ maam Cheikh Khady Faye ñoom sëñ Ousseynou sëñ Baye Ndam sëñ Mortala sëñ Abdou Sakko sëñ Fallou waaw dama ci yor aw laaf rek ah. boo xam ne maa ngi ko Cheikh <laughs> waaw jërëjëf jërëjëf fàttali sëñ Bada kon moom mooy doomi Serigne Dame Abdourahmane Fall Saliou moom maam Saliou Fall bu Daaru Xafoor moom mi nga xam eh, ne moom bi moo bàyyi ko Mbàkke jëm Touba waaye tamit ngir la Baye Fall yi tey xëyee woon ci ndigalal Serigne Amdi Fall Modou Mbend moo woote woon tey jii eh, këram Baye Fall yëpp wuyu ko mu ne bir dëkk bi di fi yak mbaa fi def dara wala muy def benn bruit boo xamante ne bii Cheikh Mouhamadou muntaha mooy li nga xam ne da koo tere ci dëkk bi loolu nag dénk na ko njabatu maam Cheikh ibrahim Fall kuréelu sàmm war mooy Touba ñoom ñëpp mobiliser woon nañ ci njiital Serigne Assane Fall ak Serigne maam Cheikh Khady ak mboolem njaboot gi Serigne dam Soda ñoom ñëpp ñi ngi ci biir njabootu Cheikh Fall gépp ngi fi eh, kii itam ci ndigal yi la bokk ndax Serigne bi dafa wax ne kuy jokku ne na nga waajal sa bopp lépp rek ngir fas rek li Serigne bi bëgg ci dëkk bi mu daal di eh, am kon nag ñoo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala rek eh, mu defal ñu ñu dégg ko te te jëfe ko ndax loolu xam ne mënoo bàyyi bàkkaar araam na ci yow sax Cheikh bi ne nga dëkk Touba kon nag dafa am nu ñu fiy dëkkee dëkkin woowu la Cheikh Mouhamadou Mountakha taamu loolu nag yëngu-yëngu yi bari na moo tax mu delloowaat mbir mi moom maam Cheikh Ibrahima Fall kon tey gis ngeen ne Baye Fall yëpp ngi fii kon nag képp koo xam ne yaa ngi wéyee ndigal noppi dégg ndigal daal sax na ci sa bopp bii na xam ne moom taxaw nañ temm ngir li sëñ Mountakha bëgg ci dëkk bi dana am incha allah te sëñ Saliou Fat Sow mi jiite liggéey bi mas na maa wax ne Baye Ibrahima Thiam Cheikh Ibra ko yar ca Njaareem toog na fii na ma sa maam Cheikh Ibra Fall toog na ci tàkkusaan ñëpp toog ci Njaareem mu ne sëñ Bamba lu mu bëgg mën naa am kon nag li sëñ bëgg faaw mu am wasalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatu waaw jërëjëf xam naa li ñuy ci dolli rek mooy ni ñuy Baye yi mobilisé woo ci kenn ku ne gi nga nekk noonu la nun journaliste Baye Fall yi mobilisé woo ci liggéey bi mboolem communicateur wala ngay journaliste ngay caméraman ci noonu la nu ànd ñun ñëpp ngir ànd ak Baye Fall ci liggéey bi képp koo xam ne réseaux sociaux nga nga génne benn image wax ci naka sudul noona ñun nga jàmmaar lool ñun loolu sunu sunu paar la beneen bi mooy képp ku jël ab image nga monté ko ca feneen ca neneen su boobaa dinañ ko xam xam ne image bi nga jël daa foo ko jëlee am foo ko dugal su boobaa dinañ génnaat jàmmaarloog yow kon manam xex bi kuuri ci la waaye ci walu communication it bay Fall yaa ngi fi mam Serap amna lépp li mu wax ne lu suñ Bamba bëgg man na am li da ci bok ñu ngi ànd ak suñ jëwri nak sëñ Mamoun Ndaw mi mo jiite liggéey bi ñu ànd ko mbokki taalibe yëpp alaykum wa rahmatullahi taala bul murid au service de maam Cheikh Ibrahima Fall